أثب حن الله في كرم بثا خبل مبارثي وعني خلبثا دعاني الرحيم حند الداوم له بما أغنى عن التداوم بسم الله الرحمن الرحيم أصغب عن الله في كرم بثا xablu mubaarisi wa ani xalbasa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen déggee lool rek xam ne ndigal bàyyikoo na ci sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa Basiir yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér wàcc ci rakkam ji di jëwriñam sëñ Siidi Mbàkke moom Seex Abdul Ahad fu ndigal li jëm Côte d'Ivoire ci loxo kan lañ ko teg sëñ Mourtala Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad muy lan màggal gi nga xam ni mooy màggalu nag Grand basam lan la ñuy fàttaliku jaar gi sëñ Touba jaaroon foofu ak la mu fa def ak xéewal yooyu mu fa sotti bis boobee nag moom la ñuy waajal di ko def kañ lay doon le premier lay doon le deux ak ak le trois decembre le premier décembre nag mooy doon bis bi nga xam ni moom la ñu jagleel eh, soxna Jaara Buso bis boobu nag ku ne xam at bu jot ci njiital. soxna Baali Muntaxa moom lañ koy defee waaye ren nag kan lañ ko dara jaalee sëñ Abbas Bousso moom seen Seexu moom seen Mbousso be sëñ Abbas Bousso nag moom di euh, soxna si la Libaas kon ñu xam ne moom ak soxna Moominatu Mbàkke bintu Xaadim Rasool ñoo bokk benn ne wayjur bu jigéen moom la ñu dara jaalee bis boobu di ko yëgal mbooleem waa Mbousso be yëpp mbooleem waa Gede bàyyiwuñu kenn waaye nag parrain d'honneur ba nag mooy Alaaji Mbàkke yu fay bi nga xam ni mooy représentant sëñ Touba ci euh, ndakaaru moom it moom mooy ki nga xam ni mooy parrain d'honneur bi euh, ci bopp bis marraine d'honneur bi nag di soxna matilo Gaydeel mi nga xam ni day kenn ci sëriñ bi euh, moom nag doomi sëñ Idrissa loola di sët ci maam Gaydeel da dëkk ndaam moom moom mi nga xam ni nag mooy marraine bis bi moom it ñu ko ciy woo di ko yëgal mboolem invité d'honneur yi nag di ci jiital sëriñ Galas Mbàkke Kaltum moom sëñ Alaaji Baara Mbàkke moom sëñ Fallu waaye nag kenn koo xam nit day kenn ci kër Sëriñ Abdou Lahad doon fi taalibe doon fi doom doon fi jëwriñ bokk fi seex yi gën a mag muy Sëriñ Abdou Lahad Jaxate moom sëñ Seex Jaxate moom Sëriñ Amsatu Jaxate di ko yëgal tamit ki nga xam ni mooy Habib Biyaay di ko yëgal it soxna Gàmmu Jóob bi nga xam ni mooy présidente fédération daayira yi ne dakaar yëpp ci Masaalikul Jinaan bis bi nag dinañ ci rendre hommage ñaanal ci seen doomi bopp muy Sëriñ Siidi Mbàkke moom seen naa moom si Abdou Lahad ak euh, soxna may Munatu Mbàkke bintu Serigne Modou Faty Khary dinañ ko ci ñaanal ak soxna Khoudia Fall euh, bëgg fallu mi nga xam ni mooy euh, way juru soxna Ngoy Fall mu Serigne Askia di ci ñaanal it soxna Faat Kiné Dem moom Serigne Touba ca Tamba ak soxna moomi buso Seck Dani mi nga xam ni mooy soxna président Bougane Gueye Dany moom it dinañ ko ci ñaanal waaye nag ñoo ngi ci woo ki nga xam it mooy soxna Mominatou Bousso moom sëñ euh, Abbas Bousso ndax ku ne xam ne nag sëñ Abbas bi soxna jaara bi ren moom la ko sëriñ bi jox moom la ko moomale ñoo ngi ci woo it so soxna maam euh, Lawbe Mbodj mi nga xam ni mooy présidente daayira yi nekk ci Abidjan yëpp di ci woo soxna Mbodj Diagne di présidente daayira maam jaara yi ne Abidjan bisu maam jaara bi nag ñoo ngi koy defee ca Abidjan Côte d'Ivoire ca salle conférence bi nekk ca hôtel plateau ca Abidjan muy hôtel Noum foofu lañ ko defee woon daaw fa lañ koy defaatee ren incha allah ku ne xam na ni nag ren nag daa am leneen lu ci dolliku moo tax bii soxna jaara bi sëriñ bi jàpp ko àjjuma waaye samedi bi incha allah la def muy samedi le 2 nag bis bi nga xam ni. moom la ñuy jox jàmbaar ji nga xam ni moo leeral lépp muy maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na nu ko yàlla fayal lamp baabul muridiina le deux bi moom ñu xam ni samedi bépp maam Cheikh Rafaala ko moom nee na nag ñu koy tuddee jàmbaar ji nga xam ni bokk na ci xar baax yi sëñ Tuubaa yi ndax day doon ab sërif ba noppi di Baay Faal yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëriñ Abdourahmane Fall ci laa la sëriñ bi nee na nag ñoo ngi koy woote nag ci ndigalu sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbende mii xalif général Baay Faal yëpp nee na nag bis bi sëriñ baa ngi ko dara jaalee jàmbaar ji nga xam ni nag bu génnee rek ni nga xam ni kii surtout pa Seex Ibra Faal la muy Serigne Cheikh Rokhaya Fall ñu gën koo miin ci Serigne Cheikh Ndigal Fall nee na nag bis bi moom moomee nag moom la ñu ko dara jaalee di ci woo nag ne parrain d'honneur bi nag di Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany nag di taalibe eh, Sëñ Touba boo xam ne pastéef ak pas-pas ak gëm Serigne rek moo ne ci moom moom mooy parrain d'honneur boobu waaye marraine bi nag. di soxna maam say Mbàkke bintu Cheikh Mamadou Fadal ñu gën koo miin ci ni soxna Njaaya moomu Cheikh Mamadou Fadal loolu nag li tax sëñ bi def ko ginnaaw bi mu doonee mbokkam di léppam nag waaye soxna Njaaya moomee moom la Serigne Fallou tuddee soxna maam ma sëy na bu Njaay mi nga xam ni mooy woyjur maam say Ibrahima Fall ak rakkam soxna Assu Njaxat Mbàkke bintu Cheikh Abdoul Ahad moom tamit bokk na ci marraine d'honneur yi waaye invité d'honneur yi nag di président Birima Mangara ak Chérif Abdou Aziz Fall Tilala ak njabootu ku waa kër Cheikh Oumar Fall Tilala yëpp ñoo ngi leen di woo ci bis bi ak soxna maam Issa Mbacke ak lu café moom ku ko miin miin ko ak màggalu Grand Bassam ak soxna Astou Kunta doomi alaaji mam bu doomi doomi sëñ Mamadou doomi seex bu Mouhamed Kunta borom Ndiassane moom it ku ne xam na taxawaayam ci sëriñ bi moom it ñoo ngi koy woo ci bis bi ak soxna nen na gay bintu soxna bintu Mbacke moom ma sàmba ak soxna Awa Diop mii président daayira Masaalikul Jinaan yi bis bi nag ñoo ngi ciy rendre hommage nag jàmbaar joo xam ni kenn dootu ko fàtte ci kër maam Cheikh Fall muy borom Ndar Fall di Serigne Modou Ablaye Fall moom maam Cheikh Fall di ci woo njabootam gépp Serigne bi nag wax na ni bis bi it ñoo ñoo ngi ciy ñaanal it Serigne Cheikh Fall Ndiaye Meng mii nga xam ni moo doonoon xalifa Cheikh moodu Moustapha Fall te bàyyi koo fi bu yàggul dara ak Serigne Moustapha Fall faatikan moom naka mu bokkee ci kër Cheikh Fall waaye ku ne xam na digganteem ak ak ne Khalifa Fall Maajoor nee bis bi nag ñoo ngi ciy woo njaboot maam Cheikh Ibra Fall gépp ak soppe yëpp bàyyiwuñu kenn ñoo ngi ciy woo it sëñ Mandiaye Ndiaye mi nga xam ne mooy jëwriñ maam Cheikh Ibra ca Côte d'Ivoire ak waa kër Serif Abdourahmane Fall Tilala yëpp sëñ bi nee na bàyyiwuñ ci kenn ñëpp ñu ngi leen woo nee na waaye bis boobu nag ñoo ngi koy amalee ca place bu euh, Grand Bassam ca place ba di bisu bi la ca tegu nag di màggal gi nga xam ni nag mooy jaar gi sëñ Tubaa jaaroon foofu ba tax bi mu nee alamani rahmanu fi safina bi annani haddi musil madina bara anillahu la daa konakiri min kul jaarim ilal manakiri dafa ne asraba anillahu fii karambasa bis boobee nag moom mooy dëppoog le trois décembre bis bi nag kan lañ ko tuddee ne ma magi mag magi mag nag boo ko déggee xel yi ci kenn rek lay dem muy maam moor moom maam soxna jaara ni borom saam bis bi nag moom bisam la ndax ci la farakam ju baax ji jaaroon def fa xar baax yi mu def si ci tukki bi indi ñu sérité bu dun bii kon nag sëriñ bi wax na ni bis boobee nag di màggal goram basam ren sëñ Mor Jaara Mbàkke moom nu ko tuddee waaye nee na nag mi mi ngi ci woo président de la république monsieur Macky Sall ak premier ministre Amadou Ba mi nga xam ni mooy invité d'honneur bi nag ci bisu màggalu Grand basam boobu waaye parrain d'honneur yi nag ñu ngi ciy jiital monsieur Ablaye Sylla di directeur u Ecotra ak Serigne Askia Touré ministre conseil au président de la république waaye marin d'honneur bi nag di soxna may mënatu Mbàkke buntu Cheikh Abdou Lahad taaw bi taawu lépp jàmbaari kër Cheikh Abdou Lahad moom mooy marraine d'honneur bi waaye nag ñi ngi ciy woo nag ministre euh, Mamadou Diagne Fada moom it di taalibe ni sëñ tubaa waaye nag di kenn ci sëriñ bi di ci woo bu baax Amadou Racine si maire de la commune de Podor waaye di PDG King Fat Palace ak soxna Astou Bali Mbacké bintu Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma waaye ñoo ngi koy woo ci bis bi sëriñ bi nee na mi ngi ci woo njabootu sëñ Mourtala Mbacké Khadim Rasoul gépp ndax moo ko ci joxoon ndigal ndax moom moom la sëñ Abdou Lahad Faye Cheikh Mourtala moo ko yar def ci moom li ñu def ci moom yóbbu ko Côte d'Ivoire ba noppi dëeral ko fa nee na kon nag njabootu baayam boobee yëpp moo ngi leen ciy woo sëriñ bi neen nag mi ngi ciy woo magam di xaritam di sëñ Mahmoudan Mbacke moom si Abdoul Ahad doon na kenn ci moom ak sëriñ Amsatu Mbacke moom si Abdoul Ahad mi nga xa ak mboolem rakkam yi ak xaritam yi soppe yi waaye di ci wooy sëñ Abdou Samad Mbacke moom sëñ son yi bu moom it ku ne ku ne xam na digganteem ak Cheikh Mourtala sëriñ baa ngi ci woo mbokkam yëpp nee na ba bàyyiwul kenn bis bi nag di dinañ ci ñaanal sëriñ Saliou Touré murit Sadikh jàmbaari sëñ Tubaa ji nga xam ni liggéeyam kenn dootu ko fàtte ak ki nga xam ni nag mooy président Ahmadou Serigne Ba di magistrat mi nga xam ni mooy ni way juru maître liika ba sëñ bi nee na dinañ ko ci ñaanal di ci ñaanal it soxna barakatu buso ñu gën koo miin ci soxna gàddu buso nga xam ne barki démb rek la fi jóge yàlla yàlla yokku leeram moom it dees dees na ko ci ñaanal di ci ñaanal it Baali Mbàkke bintu soxna may munatu mbàkke bintu xaadim rasool di ci ak ki nga xam ni mooy soxna astu gaawaan moom Cheikh Abdou Lahad mi nga xam ni mooy wuy juru Cheikh Mor Fall nee na it ñoo ngi ciy soññu ki nga xam ni nag képp koo xam ne dugg nga ko diwaar bala nga wax ak kenn moom ngay waxal ndax liggéeyam bu ko mate aki taxawaayam ak pas-pasam muy jëwriñ sëñ Magumba Thiam ak sëñ euh, Aydara Sëy ak jëwriñ sëñ ne Baara Faal ñoo ngi ak mboolem ñi ne seen ginnaaw bis bi daal mi ngi noonu waa Côte d'Ivoire gépp nañu takku taxaw te xam ne bis bi seen bis la sëñ bi woo na fépp woo na ñëpp woote na fépp kon daal bis baa ngi noonu na ko ñëpp waajal. ni ko sëriñ Mouhamadou Mamoun Lo waxee rek noonu la demee jataay bi ku ko xool xam ne bis bi nga xam ne ni moom la ñuy defal sëriñ Touba Xaadimu Rasul ca Côte d'Ivoire ca muy bis bi sëriñ Touba jaaroon fafee ca Garambasam moom la ñuy waajal muy bis bu mag boo xam ni Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moom la ko jàmbaar ji dénkoon mu di ko taxawu ànd ko taawam bii di Cheikh Abdoul Ahad mbakke mi nga xam ne moom la dénk comité d'organisation bi euh, jataay bi nag fi ñu koy defee ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha xam ngeen ne at mu nekk euh, sëriñ bi dina jox euh, li nga xam ne ni mooy dana jóg soldaal dàllam dem laaj sëriñ bi ndigal mu boole ko ki nga xam ne tey moo yore kàddu yoon yëpp di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdul Xaadir moom la ñu euh, teew ni ci kanamam di yëkkati kàddu yi ci ndigalul sëriñ bi ak ci teewaayam ndax kàddoom rek bu jubee kàddu lislaam gépp jug na waaye kàddu yoonu murit gépp jug na kon mënoon naa doon sax genn kàddu ndax bu waxee jëfe rek moo cay topp waaye loolu lépp fàttali rek comme ni ko alxuraan waxee ne dina jariñ ab jullit ku gis jataay bi xam ne bis boobu moo dellu si muy bis boo xam ne nii bis bu Serigne Touba marqué la ci tukki bi nga xam ne ni doon na ko def ci yoonu géej gi bi nga xamee ne mi ngi jëm fële ca Gabon euh, kon nag ñu ngi koy defee ci kanamu Serigne Bassirou di ko fàttali mbokki taalibe yi waaye nag ci ndigalu Serigne Sidi mi nga xam ne ni moo fi toogal Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Xaadimu Rasul ni ko sëñ Mamoun waxee rek euh, tudd na ki nga xam ne ni at mu nekk mooy doon ndey bis bi di ci taxaw muy soxna Bali mu euh, Cheikh nu Cheikh Sohaibou muy soxna Bali Muntaxa di ko ñaanal moom itam sama boroom yàggal ko fi lool te mu wér bis bi nag ren mu am ay coppeeku yu baree baree bare yoo xam ne lépp rek ngir bëgg mu gën a méngoo ak jamono bëgg itam ku fa ñëw daja cee ngërmul Serigne Touba Xaadim Rasul dund li nga xam ne ni mooy jataay bi tax mu def ko ñetti bis ni ko Serigne Mamoun loo waxee rek muy bis bi nga xam moom la ñuy beral soxna Mariam Bousso Jaaratullaahi ak bis bi nga xam moom la ñuy beral jàmbaar ja maam Cheikh Ibrahima Fall waaye muy bis bi nga xam ne nag mooy bis bu mag bi nga xam ne ni moom la ñu dippee magi mag borom saam Serigne Mamour jaara Mbacke yàlla yàlla dolli ay leeram eh, njaboot gi yëpp teew fi ci teewaayu Serigne Abdoul Ahad danañ jël léegi kàddu eh, ci ndigalul Serigne bi waaye su boobaa itam ñu waajal li nga xam mooy programme bi ren nag am na ay yaatalu ci am ci diggante Air Sénégal ak li nga xam mooy Baol Voyage ndax Serigne bi liggéey na ci benn package boo xam dana tax képp ku ñëw saw nekkin foofu dana gën a yéwén allahu rabbi madame Ndiaye dana ci ñëw ci yaatal kon dañuy tënk foofu kàddu yi di ko fàttali mbokk yi waaye nag di wan ne ren nag bis bi nu ko sëriñ bi daan taxawoo ren yaatal na ko ànd na ko itam ak njaboot gépp comme sëriñ Mamoun tudd na mboolem ñi nga xam ñooy parrain dafay mel ni yëpp day matale ñu teewaal fi itam alaaji mbàkk yu fay mi nga xam ne ni mooy jëwriñu sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci ndakaaru te ku ne xam ne itam taxawaayam ci yoon wi ak liggéey bi eh, bu fi teewoon tam du yëkkati kàddu ci kanamu sëriñ Basiiru day bàyyee kàddoom ndax moom kàddoom bu teewee kàddu yëpp daje loolu mooy bis bi nga xam moom la ñu waajal incha allah muy le premier le deux ak le trois Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ci ndigalul Cheikh di ko fàttali mbokki taalibe yëpp kon ñu jël kàddu gi jébbal ko njabootu sëriñ Mamoor Jaara borom saam ci yaataluk bis bi ak woote gi di xam ne bis baa ngoog yàlla nañ ca daje ngërëmu sëñ xaa Xaadimu Rasuul noo yëkkate kàddu ci turu sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Ismaïl mi nga xam ne mooy euh, xalifa borom saam ci bisu sëñ Tuubaa nga xam ne dañ ko cërale mbokkam ma soppeem ba xaritam ba taalibeem ba sëñ sëñ Mamoor borom saam euh, mel nag buñ jëlee bisu sëñ Tuubaa cërale ko borom saam day mel ni dañoo delloo cër bi lañ delloo boroom ndax ñoom yaa seen yaari seen mbir du yaari mbir waaye mel ni mbir la sun ma ni leen sun borom boole ñaari waajur ñu bokk ko lépp na na boole seen lépp ñu bokk liggéey bi seq liggéey bi ci lépp moom ma gënoon féete nag di ko liggéeyal ci wetu alxuraan a xam-xam kon nag eh, sëñ Seex nee na mboolem ñi ay taalibe aju ci kër borom saam ak fu ñu mën nekk moo xam ci réew mi moo xam ci bitim réew ñëpp mu ngi di soññ ñoo xam ne seen bis ñëw na nañu taxaw temm rawatin nag fédération daayira bi nga xam ne moo nekk ca Kaduwaar ci njiital sëñ sëñ du Ñaan ak sëñ Ibrahima Diop ñi nga xam ne ñoo jiitee euh, fédération Mamadou Dia bi nekk fa fa mi soñ ñu xam la seen bis lii nañ taxaw temm nañ daa taxaw nañ daa taxawee ci bisu borom saam ak lépp lu ñu ci kër gi nañ xam ne bisu sëñ Tuubaa la waaye bisu Mamadou Dia la fas yéen ànd ak bokk yi ay bokkam ànd ko yéen ci njaal ba ci mujj xam ne lépp lu ñu defal Sëriñ Tuubaa rek Sëriñ Mor Jaara lañ ko defal rawatina ko cëralaatee kon dañuy jël dañuy mi ngi soñ ñëpp ci réew mi ak bitim réew ñëpp nañu taxaw xam ne seen bis a ngi nii lu ca lu ca ñu ñu taxawee ko kon fas yéene ànd ak njëlbeen ba ci mujj ñaan suñu boom àgg ca bis ak jàmm def nañu ngërëmal Sëriñ wa rahmatullaahi wa barakaatu. ñoo ngi jotali am nuyu ak siyaar sëriñ Amdi Fall sëriñ Modou Mbène xalifa maam Cheikh Rahane Fall mu ndigal lu bàyyi ko ci moom jëm ci mbokki taalibe yëpp rawatina ñu nekk Côte d'Ivoire muy bis bi nga xam daa si muy bisub bi ñu defal Serigne Touba rawat nañu ci ci maam Cheikh Rahane Fall muy le 2 décembre kon nag sëñ Amdi Mourou Mbel mi wax ne ngi ciy jiital Serigne Ma Ndiaye Ndiaye mi nga xam ne moo fa nekk nekkal fa njabootu Cheikh Fall gépp ak Serigne Demba Faye mi ngi wax ne mi ngi jox ndigal bis bii nañ ko taxaw te xam ne bisub Cheikh Rahane la te bisub Cheikh Rahane kat yéen ñi nekk ko diwal seen lépp lépp moom yéen la war rawat nag bis yëpp yi nga xam ne bisi Serigne Touba yi ñu fay bis bi bisu bisu lépp lu ñuy defal kon nañ xam ne bis yëpp bisam la nañ taxaw bis yëpp la ca war nañ ko ca def lañ ca may nañ ko ca def waaye rawatina nag bisu maam Cheikh Fall bi kon sëñ baa ciy sant bu baax di leen gërëm di wax na Serigne Moutalla Sëñ ñëw na fa waxtaan ak moom ci bis ba su ko demal boppam waaye nag ña fa ne nañ xam ne lu ñu fa moo lañ ko defal am nañ ci ndigal du ñuy yëkkati nag li ko sabab mooy bis bi nga xam ne dañ ko jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall ñu koy fàttaliku ci bis bi muy niñ ko waxee léegi rek mu ñetti fan yi nga xamante ne bi ñu ngi ko fas yéene def foofu benn bis boo xam ne jagleel nañ ko maam Cheikh Ibrahima Fall te tàmbali ko ren fas yéene at mu jot sëriñ bi wax ne noonu la koy dundale ànd kook taalibe yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci réew mi waaye ànd kook njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp bis boobu nag sëriñ bi am ci ndigalal ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall muy sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda waaye sëriñ bi wax ne mi ngi ci woo mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp jiital ci nag ki nga xam ne moo ko fi nekkal muy sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda sëriñ bi jël na sol naw daalam dem ba ca moom waxtaan ceeg moom ci bis bi waaye sëriñ bi dafa wax ne mboolem nag ñi nga xam ne ñoom la séqal kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñuy ay wëllëreem wala ñoo xamante ni bii sunu borom boole na ko ak ñoom sëriñ bi nee na ñoom ñëpp mu ngi leen ko yëgal mi ngi ko tàmbalee ci ki nga xamante ni bii mooy di Amdi Modou Mbenda jiital jiite njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye sëriñ bi dafa wax ne itam mi ngi koy yëgal njabootuk sëriñ Bassirou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall tey ka jiite liggéey ba kër ga muy sëriñ Badam moom sëriñ Talla Yacine sëriñ bi wax ne itam mi ngi koy yëgal njabootuk sëriñ Momar Talla Fall moom mooy xalifab sëriñ Momar Talla wax ne itam mi ngi koy yëgal njabootuk sëriñ Ablaye Fall Ndar tey sëriñ Talla moom sëriñ Ablaye Fall Ndar moom moo jiite kër ga ne mi ngi koy yëgal itam njabootuk sërif Assane Fall sëriñ Amdi Khadi Fall moom mooy ki nga xam ne moo jiite kër ga seriñ bi wax ne itam mi ngi koy yëgal njabootuk sëriñ Aliou Fall Mboor tey sëriñ Cheikh Fall Mboor moo jiite kër ga moo wax ne itam mi ngi koy yëgal njabootuk sëriñ Mbacke Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall tey sëriñ Cheikh Jokke moom moo jiite kër ga moo wax ne mi ngi koy yëgal njabootuk sëriñ Abdou Sakkoor Fall nga xam ne mooy sëriñ Fall moom sëriñ Abdou Sakkoor moo jiite kër ga ne moo jiite kër ga ne mi ngi koy yëgal njabootuk maam Saliou Fall Daaru moom sëñ Modou Maam Fall tey moom moo jiite kër ga nee na mboolem ku ñu tudd tudd maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi nee na mi ngi la ko yëgal. nag dañuy wax ci kàddu jëwriñ euh, ki nga xamante ni moo fi représenté xalif général sëriñ ma Magoumba Thiam fii moo fi waroon a teew waane dafa am gàllankoor moo tax ñëwut kon ñu teewal ko fi di yëkkati kàddu yi yi nga xamante ni moom lay soññ ci mbokki jëwriñ yi nga xamante ni ñoo nekk Touba Côte rawatina ñi nga xamante ne ñoo ne ci l'intérieur bi sëriñ ma gumba nee na màggal gi teg na ko ci seen loxo ndax ren ak soppeeku da cee am te mu yaatu lool te nu bëgg ñëpp jaruñ ci rawatina it ñi nga xam ne ñoo nekk territoire Abidjan ñoom it sëriñ bi sëriñ ma gumba mi ngi leen di soññ ci liggéey bi te xam ñoom ñoo waral daral gan ñi te it ñu jàpp ni bis bi bu jagee ñoo ko jagal kon mi ciy soññ jëwriñu sëriñ Touba yi nekk ci Touba Côte d'Ivoire yëpp rawatina ci Touba Abidjan ñoom ñëpp ngi leen ciy soññu an sunu mbokk yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal lislaam ji nekk ci dëkk ba nga xam ne luñ mës a yëkkati ñoo ñoom ñoo ko ànd kon ñoom it ñu ngi leen di woo ci bis bi te xam ne bis bi seen bisa di ci soññ yit daayira maam jaare yi nga xamante ni ñoo nekk ci Touba Côte d'Ivoire ñëpp sëñ bii tudd na seen tur léegi ndax ñooñ buñ leen tuddee rek yóbbal nañ ñëpp ñoom nag lépp lu luñ mës a commencé buñ ci duggee dinañ ci am liñ bëgg wala ñu ci am ci lu kayo suñ jot moo jigéen ñi nga xamante ni ñoo daayira maam jaare yi kon nag ñooñu it ñu ngi leen ciy soññ bu baax lañ ci daan taxawee ñu taxawe taxawe boo xamante ne nii bu bu mucc ayib te xam ne Sëñ Tuubaa rek lañ ciy liggéeyal kon daal li ma gumba waroon waxoo lépp moom xam naa mënu ko wax waan daal mi ngi soññ mbokki taalibe yi ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ñëpp teel a ñëw ndax bisub cérémonie bi dafa dafa dafa soppeeku sëñ bi dafa bëgg ñu teel koo def ba ñëpp fekke ko kon nag ñu ngi ñaan fu waay mën a nekk na la fa huit fekk ca Grand Bassam bu ko defee midi une heure ñu mën a def cérémonie bi ñëpp fekke ko kon nag ñu ci soñu euh, mbokki taalibe yëpp ci turu sëñ Magoumba Thiam en partenariat avec Air Sénégal ñun Bawal Voyage si suñu kii Cheikh Soulaye Diagne bëgg si contribuer si liggéeyal sëñ Touba moo tax mu bokk si kontaan si lool. léegi nag ren da ngeen dégg ne da ngeen di def package pour que nit ñi ñu am tarif bu intéressant nga xam ne dañ leen di jëlee ñiy jóge Touba ñiy jóge Ndar ñiy jóge Dakar ñëpp nga xam ne dañ leen di jël def leen seen billet d'avion yóbbu leen tamit aéroport Abidjan yóbbu leen sa hôtel ya dalal leen jëw delloo siwaat leen si Sénégal ñu ñaan yàlla yàlla bu yaakaar tas lépp lu ñu si ñaam yàlla suñu borom nangul ñu ko si barke Serigne Touba. Baol Voyage ni ngeen ni mun a jot 77 638 57 84 wala 77 161 09 09 madame Ndiaye. di jël kàddu ci turu xidmatul mi nga xam ne mooy ndaw ñu féete Côte d'Ivoire tey liggéeyal Serigne Touba te tey ji Serigne Aliou Thiam jiite leen ak mboolem jëwri ñi nga xam ne ñoo nekk seen ginnaaw ñu leen di woo ci bis bi nga xam ne bii benn bis la waa Côte xam ko bu baax a baax daan ko taxawee saa su nekk waaye mu mel ne ren jii daa gën a yokku ñu ci soññ mboolem taalibe yëpp mi nga xam ne ñoo nekk ci biir Côte ak ñu nekk ci bitti Côte d'Ivoire bitti Abidjan yëpp ñu bëgg ñetti fan lay doon nañ ko daan taxawee kenn ku nekk xam nga bàngaas ba nga yor nga def ca pëstéef ànd ko ña nga ko daan àndal soññ ci bu baax ba nga xam ne gan ñi nga xam ne bii dañuy jóge Sénégal wara a wala ñëwut Euh, Côte d'Ivoire euh, ni ko sëñ bi diglee ci màggal gi saa su ñëwee nan xam ne màggal gi daa bokk ci doomi màggal yi kon nun ñëpp war nañoo taxaw laxasaayuwaat fas yéene gan ñi bu ñu tuburanke ñu ganale leen teeru leen teral leen bañ delluwaat ci jàmm loolu kat bu ñu ko defee bu sëñ bi bëggee mboolem lépp lu ñuy sàkk dañ koy am kon nag maa ngi ciy sama bopp di ci soññ mboolem ñi nga xam ne bi ñu nekk Côte d'Ivoire ñëpp góor góorlu fas yéene ñetti fan yooyu bu kenn bëgg dara nan bàyyi kër yi bàyyi liggéeyukaay yi fës yéene njaboot ak sëñ tubaa gi nga xam ne bii sëñ tubaa doo nga leen yëkkati ñu jëm si ci réew mi nu fekk nu ci jàmm yàlla nañ ci àgg jàmm te weesu ko lu bari te bisab màggal bii suñ borom def muy dàq ci màggal guñ mas a am noo ngi ñu ñëpp di ñu góor ñi di ñu jigéen ñi di soññu ndaw ñi képp képp koo xam ne bii yaa ngi jiite mbooloo nanga nga soññ ña nga nekkal fës yéene euh, cellule bi ñu la jox muy bàngaas boo xam ne bii moo xam transport la moo xam ci lu mën a doon kenn ku nekk na ca góorgóorlu fas yéene nit ñi ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm. julli di bokk taalibe yi ñu ngi ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha bi fii jëmi Serigne ci kaw suuf di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko jëme ci bokk taalibe bi yëpp rawatina ñu dëkk Côte d'Ivoire di teg nuyoo bi nag ci loxol rakkam di xaritam. cheikh Mouhamadou Moursala ibni cheikh Abdoul Ahad ñi nga xam ne bis yàlla def na ci xalaatam ak ci yéenum ju sell ak yéen taalibe bi yëpp jëriñu moo tax mu ànd ko bokki taalibe bi yëfe yëpp ngir di ko doxal ba yàlla def mu agsi fii kon sëriñ bi ni ci daa joxe ndigal rek noonu la yeesawaate yeesawaat ndigal li kàddu yi ñu ci yëkkatam ñu ngi ko def ci ndigalam mu xam ne bu dutoon xat-xat yi ak masoli bi ne ci loxoom kenn duyu ko ci moo koy def defal boppam ngir xam ne bisu sëriñ Touba waaye ki kii jëwriñ jii di Seex Mouhamadou Mourtada sëriñ bi ràññee na loolu pastéefam démb jëkk tey seere naa ko fi seere di ko fi Serigne bi xam na pastéefam donte ne nag doomu Cheikh Abdoul Ahad loolu du kiimaa ci moom koo gis rek loolu la sa xel dem kon Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mu ngi yeesalaat cantam ci ak ngërëmam ci moom ndax moom xam naa ni itam jëpp liggéey sëriñ Tuubaa la dafa jël mboolem li mu bokk ci sëriñ bi jaay ko jënd ko taalibe bi nga xam ne moo am ba suñ borom defar ko ci tawfeex jëm ci defal mboolem ñu bokk sëriñ Tuubaa itam xam ne moom noonu lay doxee képp kum seen waxuma sax kum bokkal sëriñ bi waaye taalibe bu mu seen sax jàpp na ne yow la ci yow la war dakki sëriñ Tuubaa Pastef boobu la ko suñu borom defal gën a woyof ñëpp ak ëpp ñëpp ak taalibe bi waaye gën a nangoo sonn ci liggéey Serigne Touba kon nag Serigne bi daal mi ngi ko sant di gërëm du ko ñaan ci barke Serigne Touba nga xam ne moo ko tax di jëf jàll na ko ci gën a gàttandu ba ndam li nga xam ne am na ko ci ndax eh, ndam ci liggéey Serigne Touba kat lu mu rëy rëy lii mu ci am dara gënu ko kawe mooy laq ñaari ngërëmu doomu Sëriñ Tuubaa mm-hmm. tey ku dem ci kër Cheikh Mouhamadou Mourtada da nga fa fekk liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada moo ko santoon mm-hmm. muy bâtiment bee mm-hmm. ku dem ci kër Sëriñ Saliou itam mbaar ma nga xam ne cere sëriñ bi daal eh, nuyoog taalibe bi yëpp ak daayira moo ko yeesalaatoon ci mujj gi loolu doy ko sëkk nag ndam ak yaay liggéey ci toppaat lu mel ne bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moo ko joxoon cheikh moo cheikh Sidi Moukhtar ñëw yeesalaat ko cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw wóyalaat liggéey bi. kon euh, sëriñ bi ñu ko ñaaral ci barke Sëriñ Touba. yal na ko ci Sëriñ Touba gàttandu. gën ko ci defal tawféex. ba lam yéene ci liggéey bi. ngir bëgg ñëpp jaruñu rek. suñu borom dimbalu ko ci. yow itam di euh, cheikh Abdou. yow mi nga xam ne yaay jëw nañu liggéey bi. ñu lay sant bu baax di la gërëm. ndax yàlla def na cheikh Mouhamadou Mourtada. bi nga xamee ne eh, waajtaayu liggéey bi jub si na. ñëw na ba ci man fekk ma ci sama tool yi wax ma ne ma dafa jël liggéey bépp yan la ko. ba ma ko waxee itam ma rafetlu ko lool. ne ko Cheikh bi gis naa ne ndaw la waaye jàmbar na. ndax yoon wi nga jaaroon gis naa ne ci la suubu. mooy eh, futti ku noonu tali bi fa seeni liggéey Sëriñ Tuubaa kon nag na xam ne lii cër bi mu la jox. li ñuy wax takkilif la waaye du tashrif mm-hmm. bu ko jàpp mukk daraja mm-hmm. waaye jàpp ko ak laxasaay mm-hmm. ngir xam ne yoon wa nga nekkoon ba tax mu tànn la jiital la ci na nga ci gën a góorgóorlu te ñun ñëpp kat loolu lañ xam ci yow mooy ko séef ak njàmbaare ak woyof nangoo liggéey Sëriñ Tuubaa kon nag ñu ngi la ci sant ba di la ci gërëm di la ci ñaanal itam nag nga am ci ndam lu ci ëpp ndax mbirum Sëriñ Tuubaa moom lépp kanam la jëm kon lam lu ci Sëriñ Murtadaa daa am na nga gëm ne da nga ci am doom bu ko ëpp ndax mbirum Sëriñ Tuubaa loolu moom du ci ñun ci loxol sëriñ bi la nekk loxo Sëriñ Tuubaa nag Sëriñ Tuubaa fàggoo noonu yoonoon liggéeyam kon nag na nga rafet jort te xam ne sama sëriñ bi daana wax ne liggéeyal ci am solo mooy façon waaye na muy fexee ba am moom yoon yoonu kenn néew ci Sëriñ Tuubaa noppi na ci kon góorgóor te dox jëm ci rek te xam ne li ci ci nekkul ci sa loxo ci loxo Sëriñ Tuubaa mm-hmm. kon nag ñi ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa bis bi ñu àgg ca jàmm te day see tawféex day see ngërëmu Sëriñ Tuubaa di ci liñ ci màggal itam mooy wa mooy azim sha'airallah fi inna min taqwal xulub kon loolu jaar gafa fa Sëriñ Tuubaa jaar te Sëriñ Tuubaa fépp fu mu jaar rek jaara di ko màggal ba at di tukki rawatina foofu nga xam ne fa la jaar dem ci tukkee bu tedd nga xam ne bu fa jaarutoon day mel tukki bi kon loolu bokk na ci barab bi nga xam ne waris na ko màggat kon ñu ngi sant bu wax di gërëm. di ci soññu bokk taalibe yi nekk Côte d'Ivoire yëpp nag. ñoom ñëpp itam. ñu gën cee góorgóorlu rek te xam ne bis bi seen na ndax ñu am tawféex dëkk ci dëkk ba. sëriñ bi daa ñëw ngir dimbali leen rek waaye moom eh, ab cëram a ngi fépp ci àdduna si. kon yéen ña nga xam ne nag moom cërub Sëriñ Tuubaa la foofu ndax ba mu fa ñëwee la mu fa liggéey Sëriñ Tuubaa ba tey histoire bu ko fàtte. kon ñoom itam nañ la xasaayu di xool ci moom jëm Serigne Touba. Mm-hmm. te xam ne Serigne Mourtada ko xool ci moom Serigne Touba Serigne Touba da ngay fekk ci moom. Mm-hmm. ndax koo gis moom euh, Cheikh Abdoulaye rek la lay jox. Mm-hmm. te Cheikh Abdoulaye Serigne Touba rek moo ne ci moom. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. amina ya rabbi bi hurmatil jidaan wa hurmatil qur'ani waqfin li jidaan amina ya rabba sama wal ardi ya man lahu awsaltu xayra xardi amina ya rabbi waxatim humuri wa fiika bil muxtaari kulli amiri allahuma salli ala sayyidina